aleykum salaam wa rahmatullah man maa ngi tudd Omar Mbodj. Ah, fii tudd ban barab. fii mooy cité colonel militaire. dafa mel ah, li xew nag mosul am ci àddina li xew mosul am Sénégal ndax li xew tey gàcceel nañu gàcceel na gouvernement bi gàcceel na justice waaw parce que li xew tey jaay doole la ñu jaay te ku ñu ko jaay mooy ku ñu ko jaay mooy kan mooy Descos ñu suñu problème. des ko suñ ko amal ak armée bi parce que fii dañ fay dëkk man maa fi ñëw en 1988 ba tey fa laa dëkk 88 fi laa dëkk ba tey fa laa dëkk nekk fi sama ak njaboot am na ñoo xam ne tey sëy nañu am na ñoo xam ne takk nañu jabar waaw militaires yi rek bu ñu fi ñëwee en 2011 la ñu la ñu bëggoon génne ñu bañ ne du ñu génn pourquoi du ñu génn ndax maître Abdoulaye Wade moo fi ñëw visite la ñu toog leen fii maa leen fi bàyyi. jël militaires yi affecté leen ay ay ay ay ay logement jël site euh, cité universitaire affecté leen ay logement mën nañu tudd UCAD 3 li ci des nag hôpital principal ñoo ko moom ak EMS euh, e mooy école nationale de de la santé ñoom ñoo ko moom ñun fi ñu nekk Abdoulaye Wade moo ñu bu fi ñëwee lañ ko gis mën nañu toog leen fii ak seen njaboot comme que yàgg ngeen fii bu kenn dem fen toog leen du ma leen génne. mën a metti rek mbir mi metti na trop pompier ñëw na fi sax jël si ay xale yu daanu ay jigéenu biir yu daanu ñun dafa mel ni nekkuñu Sénégal des ko xëyal ñu rek treize jours pandémie bi Macky Sall ne bu kenn génne locataires yi ñun ñu nekk fi man maa fi mujjee ñëw xam nga ñaata at laa fi am vingt huit ans vingt huit ans laa fi am maa fi mujjee ñëw ñuy dégagé ñi xëyal ñu suba teel indi ñetti camion gémi ñu ay sénégalais ak ay sénégalaises yor suñu njaboot. ñu jël suñu bagage di ko yóbbu stade amitié ban dëkk la ñu nekk ñu fi metti nañu ñetti xale nga ne ñu yóbbu hôpital pompier ño na fi ñetti xale la ñu yóbbu hôpital ñu nga ne ñu yóbbu hôpital ñuy def n'importe quoi descos di def n'importe quoi lu ko neex ci réew mi yëf yi nag metti na metti na trop trop ñu ngi woon nag le président de la république lii na ko lijjanti nu mu gën a gaawee. ndax metti nañu mënuñu taxawaal ci mbir amuñu fu ñu jëm amuñu fenn fu ñu jëm tey jii sama bagage ñu ngi nii tegee ci mbedd ma amu fu ma jëm. par rapport ak parce que ñu dañoo yaakaaroon ne ñun ay sénégalais lañu dañoo yaakaaroon ne ay patriotes lañu parce que ñun nous sommes des retraités dégg nga man j'ai fait 32 ans service aux forces françaises du Cap-Vert ak samay morom ñoo fi nekk nous sommes six personnes mais militaires yi ñoo mënul dëkk ak ñun loolu mooy suñu problème. ñun nekk nañ fi pendant trente trent trois ans la am fii tey ah vingt cinq ans yëpp ak ay tubaab lañ ko dëkkal ay tubaab boo déggoo waxoon ko cu cuur ñu ñu ñoom lañ nekkoon fii ci camp bi di nekk ñu ci ñu anam bu rafet anam bu jub militaire yi ñëw nag 2011 ne il faut ñu génn ñu bañ ñu yóbbu leen police ñu yóbbu leen tribunal ba jëmee tribunal dañ leen gagné dañ leen gagné waaw ñu def ñu def appel appel bi ñun ñoo ko gagné appel bi dafa ñu wax carrément ne. yéen ñii militaires yi amuñu droit génne leen fii loolu appel bi wax parce que ñoom moomuñu fi suuf si suufi état la mu ngi nii ma yoree ak man mu ngi nii ma yore ñu tu tout on a tous les dossiers waaw fi ñu war a dem yëpp nag dem nañ fa mais Sénégal jaay doole moo fi am dañu bëgg nag Macky Sall ci boppam yëg loolu ak Marième Faye Sall parce que ñoom la ñu fal pour ñu gérer dëkk bi on a confiance au président de la République on a confiance à à à son gouvernement mais lii militaires yi def nii wékkuñu ko fen teguñu ko fen jaay doole dëgg dëgg dëgg la parce que justice bu joxee bu joxee verdigam dañ ko war a respecté mais bu fekkee ay officiers de la gendarmerie ñoo bañ a respecté ñoo bañ a respecté justice la ça pose problème. ñoom waxoon nañ leen nañ leen génnee si tey. non justement euh, au mois mois mois de juillet la ñu waxoon dañuy génne dégg nga le 31 xam nga xam nga xam nga lan mooy juillet. jour tabaski la ñu naroon génne ba ba ñuy ñëwee xam ne jour tabaski kenn du ci génne doomu aadama ñu ne ko ñu ñëwaat fii après tabaski lundi ba ne dinañu génne le treize le treize mooy demb mais loolu fa nga fa ko teg yow naka nga mën nekk nit mu nekk ci benn benn bërëb pendant 33 ans nga ne di ko jox ay délai 15 jours ak ay délai 45 jours. mooy mooy sunu problème nag loolu mooy sunu problème fu mu nekk suñu bagage xam ñu fa ñu ko jëmee. waaw xamuñu fan lañ jëmee suñu bagage yi wax nañ ne ah, xamuñu ñu jëmee ñu ne nañ koy yóbbu yóbbu ko stade Lamine Gueye sànni ko foofu waaw loolu la ñu dig léegi nag ñun ñoom ñoo koy yeb ñoo indi seen camion indi seen i nit ci ay soldaar ay xale yu ndaw ñu jël bagage yi dugal ko ci camion yi nar ko yóbbu waaw depuis se depuis dix heures ñu wax ne man leen dew ma fenn amu fu ma ko yóbbu ñu ne nag ñu ne ma boo amu foo ko yóbbu stade Lamine Gueye lañ ko yóbbu sànni ko foofu waaw mais ban ban on est dans quel pays fan lañ nekk si ñu Sénégal ñu ngi Sénégal ñu duñu ay ah, am na la sax sax doxandéem sax war a koo ko def rawatina Sénégal léegi pandémie bi mu ngi fi euh, nawet bi mu ngi fi assemblée nationale signé na benn benn benn benn motion ne ne le les les les locataires bu leen kenn génne ci pandémie bi ah xale yi ñu ngi def examen sama doom tey am naa doom boo xam def bac ren def na def mercredi li ci des war a def mais fan lañ jëm ah fan jëm.